الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين mbokk yi di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh suñu waxtaan tey kon ñu ngi jëm ci kon àggale waxtaan yi nga xam ne moom lañ tàmbali woon te muy dénkaan boobu nga xam ne sëriñ bi ñu ngi ko def ci tëfu istixaar te jëmale woon ko ci ndaw ñi ndax waxoon nañ ne ginnaaw lislaam seen loxo lay mujj ëllëg kon jar nañoo dénk jar nañoo waxal jar nañoo yee jar nañoo yar ñu doxoon li doon koy kon yenn ci lu mat juróom-ñeent te ba ci njëkk mooy xam-xam ak perte ak sant yàlla ak sellal ak sabe ak noppi ak lewet ak muñ foofu kon fa la ñeemoon suñu waxtaan yi weesu woon mu ne kon bokk na ci nga xam ne ñu ngi koy dénkaane mooy muñ ndax muñ bokk na ci jaamu yàlla yi gën te gën cee bari ak yow ndax dañoo wax ne amul genn jaamu yàlla boo xam ne bu ko suñu borom bu koy ëllëg yomal koy am dama ko nag seet na ko jaam bi jëfe woon ci àdduna mu fay mu xool fay ko yàlla mu fay ko ko ñu ne ba mu des nag muñ ndax muñ moom comme ni ko suñu borom wax ci surtout sama surtout suma moo xam ne am na maa yoo toog faa bi dama jël bu ñu koy xayma sa faa mu ne ñi nga xam dañ daan muñ natt yi ak tiis yi ci àdduna wala gëmal sàmm leen di fay kenn du ko natt dañ leen koy soppil moom la sëriñ bi wax ci mafaabi bi naan ni ahlul balaa laysa lahum miisaan wa laysa miisaan lahum jiwaar ñu daan mën tiis yi ak naqar yi ci àdduna wala gëmal sàmm leen di ko seenu koy def koy sotti rek waaye kenn du ko natt mujj nag mooy sa bakkan nga dàpp ci naqar naqar yi li nga xam ne moom la tudd ñu tënk kon ci ñetti xeet te mooy tëj bakkan bi ci topp yàlla mu bañ koo génn ak nga tëj ko ba bañ a àgg ci mooy yàlla yi bañ ci àgg ci ak tëj ko ci mu mën a muñ dogal yi nga xam ne war a wàcc ci moom loolu ci nekk mu nangu ko jëm yàlla moo ko def te bañ koo jàmbat muñ kon mooy féete kaw mbir yëpp doo koy seet ndax mbir mu mën a doon balaa sotti rek kaw ak muñ da ko lal nag moo tax boo demee ci alxuraan sunu borom ñu tàgg lu bari ci ay jaanam ci ak muñ ndax ci muñ mboolem yonent yi ak awliyaa yi ak gaa yu baax yi dañ amoon ci ay daraja ak yiw ak yi teewal teraanga ñu ko am woon ci ak muñ kon moo tax ñu ne ko muñ mbir mu man doon balaa sotti rek aw ak muñ da koo jiitu ba noppi moo tax kon sëriñ bi dénk ci kon ñi nga xam ne ñoo toll ci am ndaw tegu ci yoonu baax ñu jëfandikoo ak muñ bi ñu ci tegaat kon mooy li ñuy wax alwaraam muy sàmm sàmm nag tegaan day ñaari xeet am na lu ñuy wax waraxal muttaqin am na lu ñuy wax waraxal saalixiin waraxal muttaqin te mooy sàmm ñu ragal yàlla lenn ci borom xam-xam ñu ko xam léegi ne mooy an yakuna baynaka wa bayna xaraami xaajibun min al xalaal te mooy nga jël lu lew doxale ko sa diggante ak lu araam nga xam lu lew loole moom doo ci àgg mukk li sa doo ci àgg nag kon lu araam la moom doo ci àgg sax kon ñu ne kon bàyyi lu lew da nga xam ne danga ko dangaa ragal ne mën na la àggale ci lu araam melokaan woowu mooy melokaan ñu ragal yàlla kon li mu ñëwee ci xadis bi nga xam ne Ibnu Maaja moo ko soloo yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne laa yablaxu al abdu darajatal muttaqin xatta yadaa maa laa ba'sa bihi maxaafata min naa bihi dara mu ne jàmm bi du mën a am mukk garaatu taqwa ragal yàlla tuut mu dafa bàyyi ba nga xam ne aay ngir ragal aay àggatul aay kon tàmm googu mooy genn xeet tàmm li ñu koy war a mën a tàmm geneen xeet tàmm gi te mooy war a faale tàmm gaay baax yi mooy tegul leen yi nga xam ne maanaam boo ko wëlbatee ci ak wet da nga gis lu koy araamal boo ko wëlbatee ci geneen wet gis lu koy ndaganal lënt yu mel ni nga di ko moytu loolu moo tudd war a faale leen bokk na ci hadith bi nga xam ne imaamu Tirmidi bi soloo na ko ñu jële ko tax ñu jële ko ci alxasan ibnu ali ibnu abi talib radiyallahu anhu mu wax ne moom xasan radiyallahu anhu xafistu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daa maa yuribuka ila maa laa yuribuka mu ni jële naa ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne lépp loo xam ne yaa ngi koy digle ca xel yaar nañ ko bàyyi te jëm ci loo xam ne nii dikk amu ci ndax dafa am ci diine ay mbir yoo xam ne ñoo lënt seenu àtte mujj ndax ñaari tegtal dañ caa gis yoo xam dañoo wóore bii day dikk di ko daganal bi ñëw di ko araamal mu ni bàyyi mbir yooyu nag nga ragal kàddu ci lu araam mooy war a fas xaalisam te mooy sàmm gaayu baax ñu ne nag sàmm bokk na ci ay njëriñam mooy day tax sa diine set sa deret set sa diine daal day tax sa diine mucc sa deret set ci tuuma comme ni ñëwee ci xadis bi nga xam ne al imam Buxaari ak imam Muslim indi nañ ko ñu jëlee ko ci saxaabi bi ñu wax Nu'maan ibnu Bashir radiyallahu anhu anhuma mu wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna al-xalaala bayyin wa inna al-xaraama bayyin wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa ya'lamuhunna kasiirun min an-naas فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراحي يرعى حول الكنان حول الكنان يوسف أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك كنان ألا وإن كن الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فقدت فقد الجسد كله ألا وهي القلب Nu'maan ibn Bashir radiyallahu anhu maa wax ne dégg naa ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne lu lew fees na leer nañ ndax yàlla wax na ko ci alquran Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ci xadis moo tax ne lu xaraam fees na leer nañ ndax suñu borom ak yonentam leeral nañ ko waaye nag am na seen diggante ay mbir yoo xam dañoo lënt ay ñu bari ci nit ñi xamuñu dem xamuñu ba xam ci lu araam la bokk wala ci lu lew mu ngi lëntee ne koo xam ne yaa ngi koy moytu sa diine dana kat sa deret dana kat ci yëpp tuuma waaye koo xam ne yaa ngi tàbbi ci lënt yooyu du ñàkk gis nga tàbbi ci lu araam mel ni ki nga xam ne day sàmm ci tool bi nga xam ne dañ koy tere bu yàggee xaw du am dugg day tëri dugg ci biir mu ne nag lépp buur ci buuri adduna yi am na barab ñu sàcc di ko aar dañ ko ku ko jege mu ne suñu borom na ay kaaraan yoon mooy li mu araamal mu ne seen yaram yi dañ yàlla sàkkal aw suuxa yi di woo xam ne nii bu jaam bi góorgóorloo ba mu baax yéren yaram yëpp ak sëy dañuy yéren jëf yi génn ci moom baax waaye bu jaam bi sàgganee ba suuxoowee yàqu yaram yëpp day yàqu jëf yi muy jëf kon doon jëf di baax suuxoowee da mooy xol bi nga xam ne moom la yàlla sàkkale wu doomu aadama moo tax kon sëñ bi ñu ngi dénk lépp ci lépp rawat na ndaw ñi ci sàmm ngir seen dina mën a mucc ci lépp loo xam ne sariya da koo ŋàññi seen deret mën a mucc ci wax yi nit ñi ak seen tuuma ndax jullit bi dañoo sàpp ci moom sangeen ab dereem sangeen sangeen ab dereem ci lépp lu ñaaw comme ni ñu sàppoo ci moom mu fexe ba mu ko génne ci lépp lu sariya ŋàññi li ñu ko teg mooy ak tafahum te mooy xam diine ak jéggi diine mooy daal xam gu ànd bu xàmmee ngeen fexe ba lépp lu ngeen di def ci diine rek tegu ci ak xam bu wóor ak xam ne du mat sëkk loolu mooy taxaw ba tey ñu ngi koy dénkaan beneen day du kon ñu ngi ci dénkaan ñaar te mooy mu wax ne wastahidu fi taa'ati rahmaani haysu takuunu bila udwaan ñu ngi ci dénkaan kon farlu ci topp yàlla ak moytu pool kon topp yàlla mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tere jamono ji nekk ak waxtu wu nekk ak barab boo mën a nekk biñ ci teg mooy moytu tooñ moom dafa dugg ci topp yàlla bi ndax topp yàlla dafa làmboo yëpp yi waaye tooñ nag dañ ko tuddee ñaari xaaj njëkk mooy tooñ sa bopp mbaa tooñ sa mbokk nit am na ko def ñett boole ci tooñ sa borom waaye ñu ne yàlla moom mënu ko laal ci genn wet moo tax ñu ni kon tooñ ñaari xaaj xaaj rek la ndax jàng bu tooñee dañu wax tooñ yàlla moom tooñ sa bopp la moo tax mu ne muy wax ci alxuraan ni wa maa zalamuunaa walaakin kaanu anfusahum yazlimuun moo tax kon ñu far ko def ñaari xaaj yooyu muy tooñ sa bopp ak tooñ sa mbokk nit tooñ sa bopp nag mi ngi amee ci juyoo ak ndigal ci ndigal ci sariya la benn nga jàdd jëf lu araam mbaa nga bàyyi lu wax sa kaw coobal te bàkkaar ba nga nag am na xeetu mbugal mu muy ñor di jëme ko ci aji bàkkaar bi kon saa yoo xam ne ni wute nga sariya xamal ne kon tooñ nga sa bopp ndax danga koo dugal ci dugguwaay boo xam ne bu taw ak ak alkandeer walla billah geneen xeet tooñ ci mooy tooñ ci mbokkum nit mooy nga tooñ ko ci alalam mbaa ab daram wala bakkanam te mooy tooñ bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon moytuloo juróom yi ca xijjatul wadaa ak bi ñu ci aj mu wax ne inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada mu ne seen dereti mbokkum jullit bu leen ko tuur araam na ci yéen seen alal mbokkum jullit araam na ci yéen bu leen ko jël ci ànd boo xam ne lewul seen ndeen mbokkum jullit araam na ci yéen bu leen ko yàq bu leen ko ñaawal comme ni ngeen araam ci seen bis bii di bisub araba ci seen weer wi di weeru tabaski ak ci seen réew mii di màgg kon kon diine yëpp dëppoo nañ ci ne kon lu araam la ndax mooy bakkan yi mën a ñoom mën a sàmm askan yi mën a ñoom deri ba tey mën a aaru alal yi mën a sangewu ba tey ñun nag koo xam ne bëgg nga suñu borom matal la ak fay ëllëg ma xiyaam te fay ga gën a mat war ngaa may tooñ sa mbokk ndax aji tooñ yi képp tooñ bu ko baalu ëllëg ma xiyaam ci ay tuyaabam la ñu jël di ko fayee kam doon tooñ moo tax am ko wax ni man de fekkoon damaa dem ba nar a jëw nit sax damay far jëw sama yaay ñu laaj lu tax mu ne ndax ginnaaw samay tuyaaba ñu jël liggéey yow ma sax di ko jox borom kon sama yaay laay jëw ndax moom laa gën a yéene sama tuyaaba kon sëriñ bi kon ñu ngi dénk mboolem suñu rawat na ndaw ñi suñ mën a nekkoon ñu farlu ci topp yàlla te moytu tooñ dañu tooñ seen bopp dañu tooñ seen mbokk beneen bay bi ñu ci dénkaan ba tey ñett mu wax ne laa tuttu alkalaam wa ruxaada wa tanibu maa yujibur fasaada ci dénkaane kon moytu wax yu bari ak nelaw yu bari ak ak yàq bi ci njëkk kon te mooy wax ñu ci jublu kon wax ju amul njëriñ ndax wax ju am njëriñ ñu gën a bari rek noonu la gën a kayit na la ak yaabam di gën a bari su fekkee yàlla moo tax wax ji amul njëriñ nag mooy lépp loo xam ne nii boo ko waxee doo ci am ak yoon te boo ci matu woon doo ci am bàkkaar doo ci loolu waaye ak sariatul islaamiya dafa gis ne loolu tànk dana na lu ci lu amul njëriñ ndax jullit bi dafa wàcc ci kaw suuf ngir liggéeyal boromam lislaam tàpp ci moom mu war a màng ak dundam lépp jëme ko ci lu baax te dañ koo tànk ci lu amul njëriñ ngir bu ëllëgee ma am aw yoon mën a bari ndax dundum jàng moo gën a seet ci lépp lu mu am te ci biir bi ci nekk bi ci dund ci lay waajale yóbbul ko àllaaxira te ku ne xam ne àllaaxira kër la boo xam ne nii lu baax da ko doy ak lu mu bari bari moo tax kon sariya xadd lool di faral nopp ci lu amul njëriñ ci ay hadis yu bare bare yoo xam ne nii bokk na ci hadis bi nga xam ne alimam Tirmisi yu moo ko génne ñu jële ko ci Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu am mu wax ni qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man xamaka najaa wax ñu ne ko da nga faral nopp ci lu amul njëriñ da nga mucc lenn ci borom xam firee ko ci li ñuy tekki mooy ko sax ci nopp ci lu amul njëriñ da nga mujj ci fitna yi ak gàtt yi nga xam ne ni dana ko lay duggee ci làmmiñ am ci beneen xadis bu koy tet bi boo xam ni nga jël ci anas radiyallahu anhu moo xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne man sarrahu an yaslima an yaslama fal yas fal yasami sumta mu ne ko xam ne bëgg naa mucc ci fitna yi ak gàtt yi nga xam ne dana ko lay duggee ci làmmiñ nañu faral sàppoo nopp ci lu amul njëriñ ñu gis bi nag bokk na ci li koy dimbali ci mu mën a sàmm aw làmmiñam mooy li nga xam ne sañ ñëw na ci téere bi ne fàttul ma naan ci jawaab bi rahmaan sëriñ bi di wax radiyallahu anhu ni bokk na ci li ñu dimbali maanaam ci ba mën ci aw làmmiñam ba aw ayam du ko lool mu ne ñett yi la njëkk mooy soxal làmb ni tudd yàlla bu sax ak wér ci jaxasoo boo xam ne njëriñ la ci dem ak néewal aw ñam ñett yooyu la wax ni moo dana dund nit ci mën a sàmm aw làmb ñam ci loo xam ne amul njëriñ mu ni bokk ni ba tey dafay dimbali ci mën a téye aw làmb ñam di farala jàng suutu naatu ak suutul xadri maanaam saaru inaa antum naaru ak saaru qul a'udhu bi naas yéen faral la saxal bi ngeen jàng dana dimbali ci ñoo mën a sàmm aw làmmiñ beneen li ci def kon ci ñett nga dinkaane ci déyroo mooy nelaw yu bari ndax nelaw moom mënut a ñàkk ndax ak dimbali ci ñëw waaye nag ci kaw nga jël ci kem la ko sala yaram soxla ndax bu bari ba bari rek day ay am ay gàpp yu bari yu koy juddoo ay feebar yu bari yu koy juddoo bokk na ci feebar yooyu nga am dana juddoo ci nelaw yu bari mooy feebar bi ñuy wax alkasal muy tàyyeel feebaru tàyyeel ci jaamu yàlla yi nga xam ne moo tax ñu bind la bokk na ci jàngoro yi nga xam ne day nelaw yu bari dana ko jur muy jàngoro bi ñuy wax amnésie ñuy fàtte nelaw yu bari ba bari dana tax maanaam nga fàtte loo moo ko lool ba tey bokk na ci jàngoro yi nga xam ne maanaam nelaw dana ko jur muy xasaawaru xal bi wow wow ko xol te xol boo waxoon ne ni jubluwuñ bi wow saaxe comme ni aw la jiwaaye wala ab bant wala leen waaye ñu jublu maanaam xol ci boppam ñàkk nangu ak waar nga xam nit ki dañ dégg dëgg xam ne lii dëgg la bu baax wante du ko mën a génn ndax day fekk ba bànneex bakkan ak noos laay at ne jekk nañ ko jekk boo xam ne nii cër bi duñu mën a génn li nga xam ne moo nekk xol bi ci ay yéen ak ci yéen yi sell kon ñu taxal ko benn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala